véritablement euh, le danger bi nga xam ni moo moo dal ci àdduna bi yëpp loolu ñun véritablement contrairement ak yeneen parti joué nañ suñu suñu rôle joué nañ suñu partition ci ci ci xeex bi. ak euh, lépp lu jëm si joxe dund bi. Euh, yéen nan ngeen ko jàngatee. waaw ci affaire joxe dund bi c'est vrai que jël nañ ay mesures même si gis nañ ci ay. coow ay polémique bu ñun option euh, choix bi du foofu parce que boo xoolee euh, li ñu waroon def mooy ñu renforcer le corps médical ak le dispositif médical d'ailleurs ci loolu le président Boubacar Camara def na ci ay propositions yu am solo mhm. nga xam ni dañuy commencer euh, depuis à partir de la recherche renforcer la recherche avec un fonds de cinquante milliards et aussi ñu tabax des politiques polycliniques donc au niveau de euh, tous les départements du Sénégal avec un fonds de six cent milliards. Mmh. renforcer le dispositif sanitaire aussi wut ay ambulances médicalisées nga xam ni euh, couvrir le territoire nga xam ni problème yi euh, dinañ ko mën a contenir parce que actuellement boo xoolee situation bi dafa dépassé le mm-hmm. parce que y a les investissements qu'il faut. qui donc qu'il fallait faire pour que véritablement euh, prévoir d'accord parce que sànq xam nga yaa ngi wax mille milliards yi nga xam ne état bi génnee na ko c'est vrai que déggoon nañ seen euh, président honoraire bi génn moo ko njëkkoon def proposition boobu mais 64 milliards yi nga xam ne tey euh, jox nañ ko par exemple ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngatu ci wàllum santé nan ngeen ko jàngatee. waaw xam nga xam nga le de dire que dañuy jox 64 milliards euh, wàllu c'est pas wàllu san sapa dañoo dem dépenser ci affaire dund et cetera ah, dund bi jox nañ leen 69 voilà maintenant euh, pour man euh, loolu lu lu loo xam dañ ko waroon def au départ la cest parce que li ñuy wax gouverner c'est prévoir il fallait prévenir que tout moment mun nañ am une crise sanitaire mm-hmm. c' vrai que euh, loolu c' est pour calmer et je pense que loolu doyul war nañ mën a gën renforcer avec comme ni mu ko sànq euh, la construction euh, donc de d' hôpitaux de de de grand ni dinañ mën a contenir véritablement des pandémies de de la yu mel yi nga xam moom la ñuy vivre actuellement. dëgg la gannaaw appel Kinshasa bi nga xam ne président defoon na ko le 28 mai 2020 Boubacar Camara. mu ñëwaat indi li nga xam ne moo di tubbi 19 euh, di ñëw si postu euh, Covid bi parce que koo xam ne la mu ngi gis après Covid bi ni ñu war a dundee euh, tey yow mi secrétaire général bu parti bi est-ce que mën nga ñu expliquer d' abord lan mooy tubbi tubbi 19. waaw tubbi mooy baatu wolof la koo xam ni mun nañ ko tekki ci tubaab maanaam émerger maanaam nga nekkoon ci biir ndox noqe génne sa ku bëggoon ku bëggoon lap génn. bëggoon lap génn. ok alors parce que dañu toll situation boo xam ni euh, l' économie est à jour Sénégal li ñu war a def mooy ñett yëf ñu xool d' abord naka lañuy ñuy amee alal joo xam ni dañuy jooyant économie. Mhm. xool naka la ñuy jëfandikoo alal jooju noonu et aussi nag ñan ñooy jëriñoo alal jooju maanaam en d'autres d'autres termes euh, Sénégal ni mu doon dundee. lépp da ko wekkoon ci laj et toll nañ foo xam ni war nañ génn situation lépp Mor nga may ñu tuuti rek mel ni am nañu ay jafe-jafe technique tuuti ñu ñëwaat euh, régler ko ñëwaat ci euh, plateau bi acca Mor ñu mm. mel ni yaa ngi woon fu am solo ak tumbi 19 bi. waaw waaw dama doon wax rek ni. Mm-hmm. tumbi. Mm-hmm. Euh, mën nañ ko tekki ci tubaab maanaam ku laboon ba pare émerger maanaam nga nox laboon génn nokki mm-hmm. alors toll nañ foo xam ni comme suñu koom-koomu réew. dafa daanu dafa nërmel moo tax le président Boubacar Camara proposé le programme Tumbi. Mm te tumbi mën nañ ko tënk ci ñetti fànn euh, bu ci jëkk mooy euh, fan la ñuy jëlee alal ji. Hmm, surtout ñeenti junniy milliards yooyu nga xam xam ne wax na ko. maanaam fu ñuy jële alal ji ñeenti junniy milliards yooyu noonu. Hmm. ak naka lañuy jëfandikoo alal yi maanaam naka lañuy defee une transformation économique durab et aussi bi ci des mooy ñan ñooy jariñoo alal ji wala naka lañ koy jariñoo alal ji. Hmm. ci tënk loolu mooy tumbi alors bu ñu duggee ci nu ñu jëlee alal ji parce que gis nañ Sénégal ni mu doon fonctionner lépp dañ ko wékkoon ci leb maanaam ci l'endettement ci ce qu'on appelle euh, l'endettement massif mm-hmm. euh, te Sénégal am na alal am na ay ressources naturelles yoo xam ni mun na ko weccee utiliser ko ba mën a am garanti pour mën a am alal joo xam dina mën a def euh, véritablement Euh, transformer euh, l'économie de façon durable ci naka. Mm-hmm. maanaam bu ñu jëlee par exemple. da koy tayle wala da koy weccee. non dafa am weccee ak garantie. Mm-hmm. bokkul ak tayle. Mm-hmm. maanaam bu ñu jëlee par exemple le secteur de la pêche ñu ni xam nga boo xoolee Sénégal de tout le temps li def mooy signer des des de des euh, di signer ak les les européens di leen jox des accords de de de de de la pêche di leen jox ay. des licences de pêche alors. fii président Boubacar ni mu ko théorisé mooy ni ñu ko xalaate mooy suñu créer des sociétés yoo xam ni avec les occidentaux les Sénégal nekk ci actionnaires nga xam ni bu ñu ñëwee dina nekk ci biir ànd ak ñoom napp jën ñu xam lan la ñuy génn ak naka la toll lan moo war a dem bitim réew ak lan la war a transformer ci réew mi. Mm-hmm. parce que aussi loolu dinañ mën a permettre non seulement ñu rek la problème de l'emploi. Mm-hmm. et donc bu defee loolu. nga xam ni société boo koy taxawal boo demee à l' étranger donc ñi nga xam ne ñooy lebal xaalis nga xam ni da nga bu ñu la lebalee xaalis nga ñëw taxawal société di liggéey société bi di fay dette bi et le et non l' état du Sénégal le service de la dette. Mm-hmm. parce que boo xoolee ni Sénégal di endetté woo avec le service de la dette les bailleurs de fonds dañu képp dañu xoj. Mm-hmm. ba mënuñu nooy te mm-hmm. aussi loolu da di loo xam benn système boo xam ne ñoom la arrangé. mais ñu bëgg mooy toujours di ñu noot. Uh-huh. ñun ñu ñëw topp di di leb di fay di leb di fay. loolu mënul indi développement koom-koom. et donc pour que suñu koom-koom développé suñu defee loolu proposition boobu ñu wax dinañ mën a transformer yi nga xam dañ ko doon jigaan di ko jële bitim réew dootul am d'ailleurs loolu la Occident yi comprendre moo tax ñu ni pousser toujours mmh. euh, donc ci ci forme d'endettement boobu mmh. loolu moo war a jeex mmh. léegi ñeenti junney milliards yi sànq yaa ngi koy wax am na ressources naturelles yoo xam ne ñu ngi fii Sénégal euh, xam nga soo ne dañ koy weccee euh, loo weccee moom yaakaar naa après dootoo ko moomati ndax dañ est-ce que waruñ ko waruñ waruñ koo tayle ñu lebal ñu kat non non xam nga da ngay wax wecce ak garantie c'est différent non attention c'est pas wecce yow bu fekkee yow xam nga li non non xaam expliqué la c'est plus xam nga mooy Euh, je sais pas comment en wolof quoi c'est-à-dire. garantie ma ne ma cinquante mille sama téléphone. xam nga garantie mooy. Ah. man xam naa ne yow. am nga alal joo xam ne mën nga ma fay solvable nga ci mm-hmm. ci français maanaam yow gis na ni yow am nga or am nga zircon am nga pétrole am nga lépp su ma la joxee quatre mille milliards mën naa tëdd naa la te xam ni tôt ou tard di ma ko fay parce que am nga foo ma ko fay mm-hmm. d'accord c'est différent alors loolu bu ñu ko defee mm-hmm. nga xam ni les investisseurs ñëw nañ ñu ànd ci ak état du Sénégal ñu créer ay entreprises yoo xam ni entreprises yi non seulement Sénégal yi dinañ ci liggéey dina dem euh, ut ay bato de pêche yu dem par exemple comme exemple euh, euh, pêche bi mu jëloon di dem ci géej gi ak sénégalais ñu xam liy dugg ak li génn moo gën ñu ñëw signé ay licence de pêche tëdd di nelaw ñoom ñu ñëw pompe suñ géej yëpp ba suñ moo yi amatul lu ñu mën a nappe fu ñu mën a nappe donc c'est ça le format am na aussi d'autres parce que bu ñu jëlee aussi le secteur de oui. mais xam nga ko xam nga tumbi 19 bi suñ déggee suñ see gisee li nga mooy 19 points yi. c'est c'est c'est tellement intéressant mhm. moo tax foog ñu taxaw si mhm. surtout sa dégg nañ seen euh, ki nga xam ne moo di président bi di wax ne suñu wér-gu-yaram ci boppam moo feebar donc xam nga kon am na santé bi loo xam ne moom am na ay proposition yu mu si def euh, wax ne six cent milliards léegi santé bi six cent milliards yooyu nan la ko bëgg a distribuer ak naka lay demee waaw non xam nga li ñu wax mooy dañuy teg benn fonds de six cent milliards pour relancer le secteur de la santé donc ni ñuy relancer secteur de la santé mooy comme ni ma wax sànq créer des hôpitaux des polycliniques à travers les quarante cinq départements du pays ut ay euh, des des ambulances médicalisées nga xam ni dinañ am mettre en place benn système de sécurité boo xam ni bu nee tub alerte dinañ mën a jël nit ki yóbbu ko mu defal ko les premiers soins yóbbu ko hospitaliser ko loolu moom ak Sénégal. Mm-hmm. gi nga ñoom ce les techniciens de la santé même ñoo ko wax que on a vraiment un plateau médical euh, désastreux et donc li war mooy véritablement. construire des structures de euh, de santé dignes de ce nga xam ni véritablement dina ànd ak euh, xarale yu bees yi bu ko defee Euh, feebar yu mel ni bu amatee dina mën a taxaw askan bi mhm. mais tamit lu jëm si wàllum njàng meek njàngale mi euh, naka ngeen yaakaar ne suñ ko defee ak euh, post Covid 19 bi wala jamono ji sax nga xam ne njàng mi am na jafe-jafe si ci gune yi nga xam ne war nañ tàmbaliwaat enseignement supérieur bi aussi ñu ngi wax le premier septembre ak jiixi jaaxa yi tey nan ngeen gis yéen yéen ñi nga xam ne yéen nekk PCS jëngu ne suñ ko tegee njàng mi na jaar si waaw xam nga on a assez de temps avec donc la pandémie là et je pense que njàng mi euh, surtout niveau supérieur nga xam ni c'est des personnes responsables bu ñu leen sensibiliser avec la distanciation physique je pense que war nañ mën a def des classes présentielles mm-hmm. je pense bien peut-être fi mu xawee poser problème tuuti mooy les enfants nga xam ni c'est compliqué pour les canaliser pour que ñu mën a respecter les mesures barrières mais à mon avis suñu euh, encadrer Euh, les étudiants au niveau de du du du supérieur war nañ mën a reprendre ci njàng bi moo gën ñuy dem di di di observer une année blanche. mais mais Sénégal sooy xool tamit euh, secteur informel bi à quatre vingt dix pour cent gars yu bëri moom la ñuy si la ñuy yëngatu. Euh, est-ce que est-ce que tumb bi yéen am ngeen benn benn benn pàcc boo xam ne jagleel ngeen la ko. waaw non xam nga xam nga boo xoolee tumb bi dafa dama wax naa sànq yi am na pàcc boo xam ne mooy. ñan ñooy jariñoo maanaam alal ji nga xam ni moom lañu indi ñu def transformation durable de l'économie mais maintenant on prend en compte tous les secteurs mu di euh, le secteur informel et donc mu di aussi la santé wax naa ko sànq mu di aussi la formation mm-hmm. loolu aussi bokk na ci parce que aussi bu nu jëlee alal ji xam fi ñu ko jëlee xam nañ koy utiliser. bu mm-hmm. boobaa ci askan wi lay delluwaat mooy li ñu wax le donc le développement du capital humain c'est important parce que aussi réew mënul développer te ñi koy ay askanam amuñu xam-xam amuñu formation bi war ba mën a taxaw réfléchir sur des plans mën a xam nan la ñuy wutee liggéey mën a xam nan la ñuy defee entrepreneuriat mën a xam également naka la ñuy euh, gérer dëkk. c'est important. Mm-hmm. moo tax donc xalaat na ni euh, le surtout le secteur informel nga xam ne ñoo ci gën a vulnérable. Mm-hmm. ñoo ci ñoo ñoo gën a subir les conséquences ñooñu. Euh, donc bu fekkee am na encadrement bi war ñu formel leen en entrepreneuriat former leen en gestion véritablement je pense que kon euh, situation yi ñu vivre ni actuellement duñu ko fi. Mm-hmm. pourquoi ñu war a tas conseil économie sociale environnementale ak HCCT. waa xam nga dañu toll foo xam ni. Euh, situation économique dafa nekk benn situation boo xam ni bu dramatique et bu ñu nee dañuy wuti alal ji parce que amuñu alal actuellement dañu debe leb ba mënatuñ leb mm-hmm. te fi mu toll nii il faut que ñu xool li ñuy li président Boubacar Camara tuddee changement de cap maanaam fan daan tubbee foofu teen bi bu doon ne teen mën nañ dafa dëy mm-hmm. nañu xool feneen foo xam ni buñ fa jublee dina am les moyens qu'il faut am les ressources qu'il moo mu loolu moom moom la proposé mm-hmm. ci ci ci tumb mooy euh, la source donc du financement de notre économie alors ci loolu mooy li ma expliqué sànq joxe naa ci benn exemple ci wàllu pêche bi mm-hmm. boobu wax naa la ñu jël suñuy ressources def transformation structurelle def aussi Euh, ce qu'on appelle la transformation euh, à travers la chaîne de valeur commencé ko ci agriculture bi ba nit ñuy taxawale ay usines defar ay produits nit ñi liggéey ci ba nga xam ne dañuy am consommation locale euh, suffisante mm-hmm. alors bi ci des mooy le rappellement conseil économique social et social. Mm-hmm. parce que aussi mënuñu toll ni am nañ ay jafe-jafe. et donc la première des mesures à prendre mooy lan réduire le train de vie de l'État. maintenant pour réduire le train de vie de ñu wàññi yenn dépense de prestige ak yenn pasar pasar yi. Mhm. yi ñuy def aussi ci loolu ci cadre boobu la ñu proposé ñu réformer euh, le conseil économique et social nga xam ni dañuy bàyyi benn conseil boo xam ni vingt cinq membres moo fa nekk ak aussi HCCT. Mhm. ñu réduire ko ba nga xam ni day nekk vingt cinq membre yoo xam ñoo fay nekk di def le travail qu'il faut parce que on sait que d'ailleurs loolu moom la Sénégal yëpp di wax c'est un c'est des des des des des organisations yoo xam ni budgétivores mhm. alors que le travail bi ñu fay def noonu avec Euh, donc euh, benn nombre réduit de vingt cinq membre je pense que euh, ñu xool euh, mu war nañu mën a def le travail qu'il faut. léegi lu jëm ci accès universel yi. lu mel ni euh, électricité nga xam ne dëkk yu bëri war nañ ko am. ndox mu sell nit ñi war nañ ko am. est ce que tey jamono ji am na ay villages yoo xam ne ba léegi Sénégal mënuñu am ndox mu sell courant bi yeggagu fa euh, tey si tumbi 19 est am na pàcc boo xam ne. yéen jagleel ngeen leen ko. waaw mooy mooy li ma la wax dangay ngay dellu di wax ne la tumbi buñ ko doon tënk ci baatu wolof mën na nii mën nañ ko méngale ak jéngu maanaam dafa am li ñuy wax 3J. Euh, bu njëkk bi mooy fu ñuy jëlee alal ci mooy le premier ji le deuxième mooy naka la ñuy euh, jariñoo alal ji mm-hmm. et aussi ñan ñoo koy jariñoo naka la ñuy jëfandikoo alal ji ak ñan ñoo ko jariñoo les trois J les trois J mm-hmm. bu ñu jëlee troisième ji mooy naka mm-hmm. la ñuy jariñoo alal ji wax naa la ni la euh, orientation mooy euh, la pêche l'agriculture l'élevage euh, la culture le tourisme xam nga secteur yooyu yëpp lay lay lay financer lay développer bu boobaa on bu ñu waxee ci euh, affaire euh, électrification rurale mi ngi fi mënuñu développer Euh, agriculture sans pour autant que euh, les les ruraux les les contrées euh, ak les villages soient électrifiés. bu mm-hmm. boobaa am nañ ce qu'on appelle li li ñuy tuddee l'énergie l'énergie mixte. Mm-hmm. donc li fi am ak si néew ñu yokk ci tout ce qui est énergie éolienne énergie solaire et cetera et parce que Sénégal am na suffisamment euh, de soleil pour mën a euh, abriter donc pour mën a fournir. Euh, électricité mhm. alors donc voilà parce que c'est c'est un mouvement d'ensemble. Mhm. su ñu jëlee tous les secteurs et naturellement les populations seront véritablement à l'aise pour que ñu mën a euh, ku ci nekk ci secteur bi ngay yëngatu nga mën ci nga mën ci euh, am am résultat. Mhm. parce que am na yoo xam ne c'est des besoins primaires. Mhm. yoo xam ne quand même dañ ko war a jël en charge. pour que euh, véritablement le capital humain soit épanoui. am na solo ñuy fàttali na yéen a ngi seen émission espace public Africa 7 rajo ak télé 90 point 7 moom la ñuy jàppee ci rajo bi. Euh, mais Mor ku wax Sénégal aussi waaw ñi nga xam ne ñoo nekkee si diaspora bi. Mhm. Euh, ñooñu tamit xam naa ne kenn du leen pàtte ndaxte lu bëri si économie Sénégal seen loxo la la la la nekk euh, tey ñooñu seen pàcc si tumbi 19 bi lan la. waaw ñooñu am nañ ci pàcc bu am solo parce que li ñu wax li président Boubacar proposé mooy dañuy mettre en place un fonds de 300 milliards nga xam ni ñoom ils seront des actionnaires. mu nekk benn fonds boo xam ni dina mën a prendre en charge seeni préoccupation parce que aussi boo xoolee jaspora euh, problème yi am seen problème majeur mooy euh, naka la ñuy aider famille bi nekk fii boo xoolee ñoom ils font rentrer beaucoup d'argent au mmh, Sénégal mmh, mmh. et aussi naka la ñu amee kër et aussi seen nekkin foofu naka lañ ko ñangale ñi am jafe-jafe ñu taxaw leen ñu am problème santé ñu taxaw leen maara mm-hmm. détail ku ci génn àdduna ñu mën ko taxaw comme il se doit indi ko ci ay mbokkam mm-hmm. et aussi ñi nga xam ne nekk nañ fi amuñu kayit naka lañ leen mën a encadrer à travers des programmes de formation et d' insertion ba nga xam ni dinañ mën a am kayit pour mën a am ci luñ jàpp mm-hmm. donc loolu c' est ça a vraiment pour vous dire que Tumbi dafa jël en charge tous les secteurs de développement nga xam ne au cœur le capital humain daf ci am solo. Hmm. parce que bu ñu waxee nu ñuy fu ñuy jëlee xaalis bi naka la ñuy jëfandikoo xaalis bi nu ñu koy jariñoo am na ci solo. Hmm. et loolu la tumbi loolu tumbi ëmb. xam nga tumbi bi soo bu gisee ñu taxaw si sax euh, Mor. Hmm. ndaxte ñu bëri si euh, ñi nga xam ne ñoo di askan wi dañuy faral di wax ne ñu nekk si kujje gi. Euh, du ñu proposé lu am solo loo xam ne askan wi mën nañ si teg bët mais tey tumbi bi am na solo lool mais nan la ñuy def ba askan wi jëriñoo ko. waaw xam nga xam nga ñun yoruñu état li ñu am mooy. moo tax nag est-ce que mun nañ am. acca waaw xam nga ñun yoruñu état. Mm-hmm. ñun li ñu am mooy suñu expérience ak suñu xam-xam. Mm-hmm. ku xam président Boubacar Camara xam ni yàlla may na ko xam-xam macha allah xarañ na de par son expérience ak jaar-jaaram et donc bu fekkee. Mm-hmm. toll na situation bi et bien entendu le pouvoir xam nañ. njariñam waroon nañu mën a au moins consulter ko pour que véritablement proposition yooyu mu def. Mhm. ñu xool naka lañ koy mettre en œuvre parce que aussi c'est pour l'intérêt de la nation. d'ailleurs est-ce qu'il est mhm. Mhm. bi muy proposer affaire bi. proposer ko en tant que responsable de parti. da ko boo xoolee déclaration bi def dafa def Boubacar Kama citoyen sénégalais. xam nga kooku ku euh, laabir la ku yaatoo xool la. ku yéene Sénégal ku yéene askanu Sénégal. Hmm. koo xam ne dafa bëgg Sénégal développé jëm kanam. Hmm. parce que boo xoolee actuellement le gouvernement actuel li ñu wax mooy boo dégloo le président li wax mooy ñi ngi ci fan yi di ñëw. dinañ proposer benn plan. Hmm. mais ñun am nañ plan bu sotti. bu taxaw bu pare. boo xam ne lu des mooy dérouler. et donc moi je pense que ñun du ñu opposition boo xam ni dañuy opposé wu pour critiquer non mais ñun on est là pour donner des solutions concrètes des mhm. propositions yoo xam ni dañuy génne ci situation bi ñu nekk mhm. actuellement mhm. foofu lañ toll mais léegi est-ce que tey ni nga wax léegi euh, ki nga xam ne moo di président Boubacar Camara euh, pare na pour jébbal programme bi njiitu réew non programme bi ke jébbal nañ ko déjà parce que dañ ko publier à travers la presse mi ngi def la euh, déclaration le 21 mars. Mhm. deux jours après le président de la République def sorti def euh, discours à la nation. Ah. jël ci parmi les 33 mesures. non du sax 1000 milliards moo ci moo ci gën a siiw. Mhm. mais parmi les 33 mesures jël na ci boo xoolaatee aussi euh, tumbi bi aussi. Mhm. am na mesure yu mu jël boo dégloo fan yee passé temps yii passé le ministre de l' économie et des na dañuy jël aéroport bi jaay ko donc à hauteur de 60 milliards mais tumbi loolu la wax. tuum bi dañu ñu utiliser suñuy ressources. Mm-hmm. donc le foncier ci ressources yi la bokk. Mm-hmm. et voilà donc moi je pense que loolu c'est pas un problème parce que Sénégal actuellement dafa toll situation boo xam ni ku ci nekk bépp citoyen li la war mooy nga fexe réfléchir wala nga def ay propositions wala nga dox ay jéego yoo xam ne dina génn ci situation bi. Mm-hmm. donc loolu Boubacar def na waru garam. maintenant nag euh, du nekk fi naan non. mais on n'a pas xoolal. parce que bu doon sax loolu moo ko intéressé xam na fi muy jaar. non mm. ça l'intéresse pas. Mm. moom li ko intéressé mooy développement Sénégal am na xam-xamam mettre na ko à disposition à la disposition des citoyens sénégalais maintenant nag il appartient aux citoyens sénégalais et aussi avec euh, donc ñi nga xam ne ñoo yore nguur gi ñu xam ba xam. lii mu proposé laaj nañu consulter ko ou pa mm-hmm. mais moom il n'est pas demandeur il n'est demandeur de rien du tout. ok euh, mooy tey xam nga ñu ngi wax ci euh, gouvernement d'union nationale. Euh, ak programme bi nga xam ne euh, président joxe na ko wala proposé na ko ngir ñu jëmale ko réew mi euh, est-ce que du doon gën a rafet tamit président ñëw bokk ci gouvernement bi bokk ci ñi nga xam ne dañuy dérouler programme ndax moo ko gën a maîtriser. non xam nga xam nga jariñ sa réew di ci dugg ci gouvernement rek nga ko mën a jariñe xam nga mën nga nekk. soo ci duggoon day gën a rafet non attendez mën nga nekk ci biir gouvernement ah liggéey pour réew mi. tout comme man nga nekk ci biti liggéey pour réew mi parce que opposition bi aussi gëm naa ni ñoom liggéeyal réew moo leen tax a jog man nga nekk parti d'opposition di joxe sa xalaat mais boo joxe sa xalaat ñu tenir en considération sa xalaat. mais am na part sa xalaat mais am na part d'opposition yu bëri yoo xam ne jamono dañ ne dañuy dañuy critiquer rek. waaw non justement moo tax man la ñun nekkuñu parti d'opposition boobu parce que ñun aussi su ñu gisee loo xam ne jaaduwul dina ni lii jaaduwul mais aussi duñ ni rek jaaduwul yam ci. dañ naan jaaduwul ba pare ni buñ defoon lii lii problème bi dina jeex ñun noonu la ñuy opposé wu. Mm-hmm. du ñu critiquer pour critiquer mais dañuy critiquer mais tout en donnant des solution noonu la demee. Mm-hmm. donc yow fi nga nekk opposition la preuve. le président bi mu defee les 33 mesures da ko publier. Mm-hmm. Sénégalais yëpp jot ci. mu defaat tumbi 19 Sénégalais yëpp jot ci. amaana sax d'ailleurs foofu la ko euh, nguur gi gisee ba ñu xaw ci am ñu ci appliqué. Mhm. donc ñun vraiment on salue le fait que nguur gi reconnaitre que ni lii c'est la solution. Mhm. ñun foofu la ñuy xaar nguur gi te loolu mooy rôle état c'est-à-dire xalaat parce que dañu nekk 14 euh, millions de sénégalais kenn ku ci nekk am nga ci xalaat. kenn ku ci ne am nga ci wàll am nga ci pàcc pour que Sénégal développé. Hmm. ñun loolu lañ def. mais mais mais liggéey ak Macky moom yéen nekkagul seen xalaat. no lu question liggéeyal Macky Sall non parce que actuellement fi ñu toll nii. parce que réew mi fu mu toll nii. dafa dafa nekk si. xam nga euh, xam nga Souleymane Mor euh, effectivement dafa nekk si sukuraat. dañuy soxla ñenn ñoo xam ne expérience nekk si gouvernement bi. jàppale Macky Sall bu ngee ko xale la. je suis tout à fait d' accord mais xam nga euh, xam nga Sénégal dañu baaxoo bu fekkee da nga nekk opposition da ngay continuer di wéy ci opposition bu fekkee da nga nekk pouvoir nga continuer gérer sa pouvoir. parce que mm-hmm. aussi bilan heure bilan dina am mais buñ tolloo foo xam ni euh, réew mi nër melu na. Mm-hmm. Euh, le président bu wootee opposition ñëpp ñoo ko war a wuy ji la preuve bi bi muy déclarer crise bi woon na opposition bi ñëpp demoon nañ waxtaan ak moom. kon donc bu fekkee dafa tolluwaat situation bi woo nit ñi man gëm naa ni opposition bi ñëpp dina dem wuy si parce que bu fekkee dañ jeet jiital l'intérêt supérieur de la nation mhm. mais pas pour dem dugg pour am loo am mais c'est pour dem dugg pour génne situation Sénégal ci situation bi mu nekk mhm. donc man je c'est pas une position de notre parti sama xalaat laa joxe mhm. c'est pas une position également euh, de, de du, du président Boubacar Camara dama xalaat nii situation bi ñu toll nii le président Macky Sall bu wootee demande ay solutions pour que ñu ci situation bi képp koo xam ni xalaat nga ni intérêt supérieur de la nation moo la jiital war nga dem wuy ko pas nga dugg ci gouvernement mais man nga dem xelal ko. c'est-à-dire mënoon na woo président Boubacar Camara mu xelal ko ni ko defal lii defal lii ci programme technique ñu appliqué ko et puis ñu avance. Hmm. sans que pour autant mu nekk ministre mu nekk ci gouvernement. ok d'accord c'est de euh, ñu wax si leneen ak euh, tolluwaayu réew mi euh, comme tumbi bi mun nañ si noppalu tuuti wax si tolluwaayu réew mi jamono ji dégg nga ne parti yu bëri dañu am ay jafe Euh, est-ce que tey parti politique yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal moor dama bëgg ñu taxaw foofu tuuti euh, li nga xam ne moo di discipline de parti yi euh, bu njëkk dañu daan am école du parti si partie yu bëri tàggat gune yi bés dañuy xam politique bu ñu màggee yenn kàddu yi duñ ko yëkkati bu yàggul gis nga yenn saagaag yi lu mel yi nga xam ne ñu ngi koy dégg si yenn kilifa tey naka nga gisee doxalinu parti yi nga xam ne ñoo nekk diwaanu Sénégal. waaw xam nga réew mu dafa toll foo xam ni. Euh, tar na taraay boo xam ni nit ñi sonn nañ économie bi daanu na mm-hmm. ñii doon liggéey ci yenn entreprise yi ñu toog seen kër confiné wu ñii ñàkk seen liggéey yenn secteurs yi doxatul gis nga ay revendications les populations sont énervées il trop de problème donc dafa laaj dal modération et moi je pense que l'heure n'est pas ci ay këral politique coow non et donc li ñu war a def feebar baa ngi fi toujours di continuer gis nga mhm. chaque deux jours en jour ñu ngi mhm. yokk mhm. nit ñi jaaxle nan alors li ñu war tey mooy eh, ñu continuer di ñaan marabu yi d'ailleurs ñu leen di ñaan nos chefs religieux ñu continuer di ñaan yàlla musal Sénégal musal àdduna bi ci ci feebar bi et pour man loolu moo ëpp solo que di xiiroo di ŋaayoo parce que aussi euh, c'est vrai que c'est déplorable yenn saaga yu ñu dégg fan yi ci Euh, réseaux sociaux ak ci presse bi xale yi di ci jot et pour man loolu euh, day yàq valeur yenn valeurs yi nga xam ni euh, moom lañ am muy suñuy aada muy suñu cosaan xamuñu loolu surtout que ci xale yi nga xam ne ñoo ci jot. moo tax man pour man. Uh-huh. lépp l'État est responsable. L'État doit se ressaisir pour vraiment remettre de l'ordre pour que véritablement nit ñi. Euh, retourner à l' essentiel l' essentiel mooy naka lan mën a def ba génne askan wi ci jafe-jafe yi ñu nekk. Mhm. mais si parti politique yi Mor parti bu mel ni PCS yëngu su ma suma ma sama sama laaj mooy euh, yaakaar naa ne am ngeen lu ñu naan école du parti loo xam ne day tàggat gune yi pour ñu xam lan mooy politique. nan la nit war a doxalee si politique. ndaxte gune yi suñ déggee yenn saaga yi ne di yëngatu si wàllum politique euh, mën nañ jàpp ne kii kooku di def saaga bi ko lu muy def mooy yoon. tey est-ce que waruñu gën a tàggat gune yi surtout si discipline bi waaw loolu loolu am na solo parce que xam nga ñun dañu ñëw avec le président Boubacar Camara ñu ni dañuy def la politique autrement li ñu commencé mooy ñu instituer l'école du parti nga xam dañuy former tàggat suñu militant ci citoyenneté ci yar ci naka lañu ñu war a comporter woo bu ñu yoree nguur ci aussi ci tolérance ci civisme. parce que communication aussi. ci communication bien entendu parce que aussi euh, communication mhm. daf ci am wàll pàcc bu am solo mhm. bu weesoo massification ak euh, gérer élection communication daf ci am solo li ngay wax askan wi di ko dégg dafa am solo mhm. moo tax loolu lépp président Boubacar Camara bi nu ñëwee dañu taxawal école du parti chaque mois ñu trouver un thème jot nañ former sur la citoyenneté le civisme sur la politique parce que politique aussi du n'importe comment lañ koy def dañu war a changer nit ñi suñu la politique nga xam ne askan wi dinañ yaru lu ñuy wax nañ ko wax ci teggin ñu ñuy déglu xam ne ñii kat dañuy wax eh, tegu na tegu na ci ci ci ci teggin ànd na ak teggin. Mm-hmm. et loolu aussi lu am solo la muy la formation. Mm-hmm. politique la formation des militants la formation de la base loolu am solo parce que aussi euh, def politique. actuellement c'est vrai ñi ngi wax maa ngi dégg fan ñu nii nit ñi léegi dañ jëpp même politiciens et c'est dommage et du politicien yëpp ñoo yem am na politiciens yoo xam ni ils sont rangés organisé discipliné. di di di di tàggat seen i ndaw seen i militant di leen yar ci civisme ak citoyenneté ak ci aussi naka la ñuy yëkkatee kàddu. ci mhm. wàllu politique. je pense que loolu euh, parti yëpp war na ci bàyyi xel ñu xool naka la ñuy instituer. école du parti. est-ce que tool foo sax parti bu jóg te taxaw amatu yenn règles yi surtout lu mel ni école du parti soo ko mënta taxawal di ko doxal ñu ñu bañ la. may waaw man je pense que loolu fa la ñu war yegg. parce que je pense que à ñu doon def dialogue bi am na proposition bu ñu ci defoon bon mais malheureusement ça n'a pas été adopté mais damay ñaan rek euh, les partis politiques ñu bàyyiwaat xel bu baax ci formation militantisme. formation militant formation responsable et ban comportement la responsable war a am ban comportement le militant war am et aussi li ñuy wax aussi ñu calculer ci askan wi parce que aussi politiciens yi boo xoolee c' une minorité par rapport aux 14 millions Sénégalais c' une petite la preuve ñiy voté c' est 6 millions. Mm de Sénégalais ñooy voté ça dire que ñi koy diriger nekk à la tête matuñu matuñu 1 million ñi nga xam ñooy nekk les acteurs politiques matuñu 1 million les responsables kon la 6 Euh, ñi nga xam ne sont intéressés à la chose politique ñiy voté yooyu yëpp war na ñëw amee réew mi di def ay naka su dul noonu di wax naka su dul noonu man daal loolu jàpp naa ni euh, war nañ ko seetaat daal. Mhm. ba nga xam dinañ assenir véritablement la communication politique et le comportement responsable euh, des responsables politiques. ok wax nga sànq si mbirum voté ñu ngi jëm si élection locale yi ak Covid 19 bi est-ce que Covid bi war na bloquer Sénégal. Euh, ba ñuy puusaat li nga xam ne moo di élection locale yi ak euh, législative yi. oh que non man je pense que non parce que aussi bu fekkee wax nañu dañu assouplir nit ñi ku ci nekk yaa ngi doxi say soxla ku ne yaa ngi dem sa liggéey kon donc élection tëgg élection lu jaadu la lu war la plus que euh, de comment dire report na plusieurs fois ba nga xam ne yemman à la limite li ñu jàppoon te li jàpp ba léegi mooy que ni élection dina am au plus tard le 28 mars 2000 deux mille vingt et un. kon donc fichier bi est dina dina pare. waaw mooy xam nga xam nga fichier bi euh, bon non c'est vrai que avec euh, kii bi am na tuuti retard pour ñu def mais on est dans le temps bu ñu ko jëlee actuellement ñu def révision def affaire yi war na mën a nekk deux mille euh, avant mars vingt huit mars deux mille vingt un. mais mënta def révision amul beneen solution boo xam ne mën nañu ko def. non xam nga élection dafa war am. Mm-hmm. élection dafa war am parce que prolonger nan le le mandat des élus actuels de un an ça suffit. maintenant li ñu war a def mooy jël une décision actuellement def délégation spéciale d'ici deux mille euh, d'ici euh, vingt huit mars deux mille vingt et un bu ko defee ñu def la ce faut ñu fixer la date des élections et puis les gens vont préparer. Mhm. Euh, ñu wax ci mbirum si foncier bi sànq yaa ngi koy wax gis nañ ne temps yi am na ay jafe-jafe yu bëri moor ay tajante bopp am ci foncier bu Sénégal tey ban lan lañu war a def ngir foncier bi nga xam ne moom la Sénégal am ak domaine bi. ñu préserver ko surtout pour euh, ñi nga xam ne ñoo di askan wi. waaw xam nga euh, euh, foncière ñun sax dañ ci defoon proposition je pense que li ñu waxoon mooy d' li ñu war a jëkk def mooy recenser le foncier ñu xam le domaine national fan la commencé fan la yem lan lañ am et je pense que am na ay services yu fi nekk yoo xam ne seen rôle la et c' est simple parce que boo xoolee même y a eu des problèmes avec les découpages autres moi je pense que actuellement jamono ji toll na xarala bi toll na foo xam ni. Mm-hmm. war nañ mën a am recensement à travers euh, donc une technologie boo xam ni dinañ mën a recenser le si xam fu mu toll bu ko defee lépp luñ ci jëfandikoo ñu xam mhm. pour lu ci état bi joxe fan la jëm ak lan moo waral mu koy joxe maanaam lu motiver donc euh, euh, donc de, la euh, le déclassement donc de de, de des des des certaines assiettes forcières bu ko defee ñu xam ki nu koy jox ak lan moo tax ñu ko jox parce que boo xoolee vraiment c'est pas clair dafa war am une transparence bu amee transparence Sénégal yëpp xam mu leer kon coow li dina jeex. Mhm. mais li ko indi mooy da ngay jékki rek dégg ñu ni diw jox na ko li diw di jox mu bëgg a ñëw au grand jour bëgg a considérer ñi opposé wu mu indi coow. Mhm. mais buñ ko organiser nga xam ni dina am benn commission boo xam ne dañ koy mettre en place ñu seq mbir mi. lépp luy euh, lu Sénégal am ci foncier ñu xam ko luñ ciy joxe ñu xam ko publier ko ñëpp xam ko kon coow coow lu jeex. Mm-hmm. mais le fait que ñu koy def euh, euh, donc ci suuf kenn xamul voilà mu nekk vraiment une nébuleuse c' est ça qu'il faut arrêter. Mm-hmm. ñu wax si njàng meek njàngale mi di fàttali na yow it da ngay yëngatu si wàllu boobu surtout si enseignement supérieur beeg formation bi tey ministre bi ba mu génnee ne dafa bëgg ñu tàmbali njàng mi le premier septembre. Euh, ñi nga xam ne ñoo yor école de formation yeeg yooyu ñoom naka lañ koy dundee. waaw xam nga euh, dès le départ c'est très difficile ah parce que dès le départ dañu waxoon ni dañuy def subvention aux écoles formation et jusqu'à au mois où je parle. rien n'a été fait <laughs> rien n'a été alors mais euh, Dieu merci yàlla baax na ba ñun tooguñu di xaar ñu trouvé woon ay solutions yoo xam ni ñu ngi doon def formation en ligne et tout et moi je moi pense que euh, c'est une bonne chose les activités parce que actuellement même les étudiants am na ñoo xam ni ils ont refusé euh, donc la formation en parce que effectivement mënuñu jël ay mesures ni dem leen def formation en ligne te joxuñu des mesures ah, d'accompagnement ñi nekk ci àll bi amuñu mhm. connexion mhm. amuñu ordinateur mhm. ça pose problème kon donc moi je pense que bu ñu jël mesures yu mel noonu dañu war a mettre en place des mesures d'accompagnement ba nga xam ne dina am dina facile ci étudiants yi facile ci ci ci école yi mais actuellement c'est c'est très yi nga xam ne état bi ñoo leen xam nga loolu état da ko bàyyi à partir de set année à partir de cette année. mais xaalis bi nga xam ne yoraloon na ko gars yi ndax yëpp mat na. bon parce que comme ñun bokkuñ ci woon moo tax. xaw ma exactement mais li ma mën a wax rek mooy cette année orienté woon benn étudiant ci au niveau des instituts privés. Mhm. voilà. Mhm. Euh, Mor di la sant bu baax di la gërëm. maa ngi lay remercier di la euh, sant bu baax di remercier les téléspectateurs. Mhm. aussi di remercier euh, donc euh, euh Africa 7 di gërëm aussi suñu militants yi euh, ñi seetaan ñëpp et di def un message euh, d'encouragement au bureau politique mm-hmm. ak aussi le comité directeur et le président de commission technique di wax ni aussi ñu ngi waaj a préparer école du parti Euh, le vingt cinq juillet bi euh, parce que comme avec pandémie dañ ko sussoiroon et donc day nekk avec webinaire maintenant parce que ñun depuis lors sax on est en train de faire des réunions via euh, Zoom. Mm-hmm. et donc tooguñu daal. Mm-hmm. donc di wax ni militants yi ñu gën a euh, jël des mesures de précaution moytu ñu man ba nga xam ni véritablement et puis ñaan yàlla musal ñu ci mbas mi. jërëjëf ñu ngi laaj dañuy waaj 2024 daal. waaw 2024 euh, jotagul mais ñun ñu ngi liggéey. ñi ngi hmm. liggéey suñu parti parce que avant 2024 élection locale mi ngi fi yeneen élection mi ngi fi pour le moment li ñuy fi ñuy focaliser mooy élection locale. Hmm. parce que comme nekk na élection askan wi ngir askan wi. élection askan wi askan wi donc dinañ préparer suñuy militant ba nga xam ni ku ci nekk fa nga nekk daal naan fexe nga am ndam. jërëjëf mu nekkoon moor Ndiaye di secrétaire général bu PCS yëngu tabax bu Boubacar Camara Boubacar Camara mooy président honoraire bi moom mooy secrétaire général bi di parti pour la construction e la solidarité dañu sant ko gërëm ko ci disponibilité bi ndaxte yombutoon fu mu jógee sori na lool euh, di ko sant bu baax di ko gërëm di gërëm Youssou Gueye ak euh, Mouhamed Touré Mouhamed Seck ñu nekkoon ci caméra bi ak Babacar Niang Euh, sant leen gërëm leen euh, sant bu baax Barka si Diop mu nekkoon si rajo bi ak euh, nekk fa di góorgóorlu sutura bi rek sutura bi ci jàmm bi rek jàmm juti yàlla mi borom jàmm yàlla ñu jàmmal musal ñu te musal ñu ba talaata bi di ñëw. waaw président honoraire bi moom mooy secrétaire.